والقلم وما يسطرون salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziare ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel ci chaîne YouTube bu Yaatal Mbindum Alquran bu C3S ci jongante alquran bi nga xam ne baaxoo nañ koo def di ko jagleel itam ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ndongo daar yi ak ñoo xam ne rek warti nañ alquran man see bokk ci loolu nag comme ngeen ko xamee ñu ngi nii tey si daarul marnaan kër Serigne Touba ngir def phase bi nga xam ne moom lañ tuddee phase demi-finale euh, kon man samay wax du ci gudd ak euh, lant noor rek lay doon boo xam ne dañ ma wax loo Baye Fallou mu ngi fi teew xam naa bu teewoon moom euh, moom rek moo waroon a jël kàddu waaye damaa jot ndigal ci moom ndigal loo xam ne daa jóge ci El Hadj Serigne Seck mu ci moom wàcc si Serigne Dame Touré kon mu wax loolu ma ma sant mbooloo mi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñun liggéey bi euh, rawatina waa commission scientifique ci njiitalu sëriñ xaarim Ndiaye xam naa ci kanam tuuti dinañ ko dégg kon liggéey bi mi ngi noonu euh, alaaji Serigne sant nañ ñëpp jaarale ko Serigne Fallou nga xam ne mooy jëwrinam ak Serigne Dame Touré euh, mu wàcc si man mi nga xam ne maay chargé de communication bu Yaatal Mbindum Alxuraan kon ñu ngi sant ñëpp di wax ne itam liggéey bi daanaka day doog a door ginnaaw bi ñu defee dépôt bi ba pare ñu ñëwaat tey euh, def dépouillement bi si lu jàll ci ginnaaw waaye tey ñu waroon a def itam li nga xam ne mooy phase demi-finale bi war a tànnaat itam ci ñeen fukk ko doon def tey euh, yeneen ñaar fukk yoo xam ne ñooy dem finale si kàttanu yàlla kon du ñu guddal euh, Alaaji Sëriñ daal sant nañ ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ak moom liggéey bi ndax xam na ne moo ko waroon defal boppam waaye ñoom ñi nga xam ne ñooy waa commission scientifique ak ñenn ci waa C3S ko àndal ñoom ñoo ngi koy defee ñoo xam ne moom bu ñëwoon doon ko def sax du ko mën defal noonu boppam kon sant nañ ñëpp ci euh, baatu euh, Baye Fallou Seck ak sëñ Dame Touré laa doon waxee kon loolu rek laa amoon lu ma doon jàllale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen joxaat rendez-vous kon ci yeneen activité yi ñëw muy euh, correction bi nga xam ne moom lañ génn tey final demi final bi ñu génn tey correction bi ak itam final bi nga xam ne moom lañ war a jëm waajal itam cérémonie bi nga xam ne baaxal nañ ko def ci biir weeru koor yi incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala eh, bokki jullit yi Sénégal bokki jullit yi ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di di leen ziar di ndokkeel mboolem jullit yi eh, di leen xamal rek ne tey ñëwati nañ ci eh, at mi nga xam ne mooy deux mille vingt deux vingt trois ci concours national bi nga xam ne mi ngi jëm ci bind alquran ku ko dàq bind te gën koo mokkal gën koo rafetle ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi ci bokk. loolu nag xam ngeen ne société C3S euh, bu moo koy euh, amal muy loo xam ne ñoo ngi tey jii ci euh, Touba al Mahrousa ci résidence Cheikhul Khadim radiallahu anhu di fi amale de demi-finale bi demi-finale bi nag xam ngeen ne ñu ngi toll ci quarante personnes yoo xam ne xëy na danañ ci ñëw ndax Serigne Moustapha Diop mi nga xam ne moo jiite jury bi dana ñëw ci processus biñ tàmbalee ak niñ ko seggee ba fiñ ci toll waaye li ñuy wax rek mooy quarante yooyu nag euh, nekk weeri góor ak euh, fukki jigéen euh, kenn ku ci nekk ñu tegal ko robo ci alquran mu bind ko robo joo xam ne du ko xool bind ko ci condition yi nga xam ne moom lañ ko ko sante ñu jox leen ñetti waxtu yoo xam ne ci lañ toog ak niñ ko war a defee ba pare nañ ci tey kon nag ñuy séentu ne buñ defee correction bi am na lu war a génnaat li ci war a génnaat ñooy ñooy dem final nan lay toll ak nan lay tëddee loolu euh, ba tey comme ni ma ko waxee ki nga xam ne moo ko yore dana ci gën a ñëw ak yéen euh, ñuy sant borom bi subhanahu wa taala nag ci euh, taxawaayu alquran bi nga xam ne taxawaay bu yaatu la ci Sénégal waaye nag mu am ak jagle ci ci ci ci ci goo xam ne ci wàllu mbind Sénégal def ko am ci rawe ko ñu baree bari Euh, la ca des itam mooy euh, C3S ak ci njiitul Serigne sek mi nga xam ne euh, moo ko moo ko jiite gis-gis bu rafet bii mu ci am di ci def alalam di ci def léppam ñu koy ñaanal itam suñ borom subhanahu wa taala mu fay ko te itam mbir mi mu egg fi nga xam ne weesu na sax fo ñuy ko njorte ndax jamono jii ñu toll nga xam ne lislaam ñi ngi koy xeex fo ne ñëpp xam nañ ko waaye te lislaam ku koy xeex mënoo fe romb alquran di lakk kaamil di di ko sobeel di ci lu ne ñu di ko ciy def yooyu yëpp lii ab taxawaay la boo xam ne daf ñoo war a gën a soññi ñu gis ne kon ndekete alquran euh, jàng ko baax na mokkal ko baax na waaye gën jaa baaxa ci nag mooy boole ci man koo bind yaxal ko nga xam ne tey bu alxuraan réeroon maara day taali xaw ma ban dëkk wala ban réew waaye fii ci Sénégal moom mën nañ koo bindaat te kenn du ci mën a dindi dara lool nag jéego bu mag a mag la xam naa dañuy gàttal rek jox sëñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite jury bi mu wax leen processus bi fi ñu tàmbalee ak fi ñu toll ak fi ñu jëm incha allahu taala ñuy ñaan yàlla mu eggale ñu ci eh, cat la ak résultat yu am solo sàmm ñi nga xam ne ñoo doon bind sàmm ñi ko toppatoo sàmm ñi ci def seen ki ci def alalam sàmm mboolem eh, jullit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk eh, yi nga xam ne ñu ngi top jotaay bi. fii ci kër Serigne Touba gi di Daarul Mannaan ci Touba te yi di alxames tolloog ñeenti fan ci weeru rajab ci atum 1444 dëppoo it ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier. tey jii mooy bis bi nga xam ne moom la concours yaatal mbindum alquran bi nga xam ne société C3S bu Alhaji Serigne Seck euh, moo ko doon euh, moo koy taxawee tey jii moom lañ doon def demi-finale yi. demi-finale yi nag ni ko xamee jiitu woon na ko beneen liggéey boo xam ne ci lañ tànne woon euh, lu mat ñeen fukk ñeen fukk yoo xam ne incha allah taala ñoom lañu invité tey jii ci demi-finale yi ñeen fukk yooyu euh, fanweer yi góor lay doon euh, fukk yi jigéen la ñuy doon kon ñooñu tey ji ñoo daje fii ñu doxal ak ñoom concours bi concours bi ni mu daan doxee lañu ko doxale mooy ñooñu kenn ku ci nekk daañ la jox laaj boo xam ne danga koy fekk ci biir enveloppe bu ñu kaste enveloppe boo xam ne dal nga ci laaj ba ca nekk mooy sab laaj euh, la nga ciy bind yi dina toll ci robo ci Quran Karim dina toll ci robo bu defee it kenn ku nekk it ak sa jataayu bopp euh, ñu jox la euh, sa toogu jox la sa sa bagage yi bind nga bind robo boobu fa mu tàmbalee ba fa mu yem te doo ko xool fenn da koy bopp bind ko maas ko suqi ko sadd ko ak lépp lu ci war kenn ku nekk dana ko def ba noppee jébbale aw kayitam lu ko defee nag euh, incha allahu taala léegi jotaay boobu moom jeex na këyit yëpp di ñeen fukki candidat yi daje na ci commission bi nga xam ne mooy euh, scientifique bi moom moo koy seet nag xayma ko ba génn ci waat ci ci biir ñeent fukk yooyu ñu génn ci ñaar fukk ñooy dem final ñaar fukk yi fukk juróom yi góor la ak juróom yoo xam ne jigéen la kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax mbir mi ci li ko tàmbali dix heures ci dix heures ci suba la tàmbali woon euh, ba une ci bëccëg mu nekk ñetti waxtu alhamdulilah ñëpp ñëw nañu ñëpp bind nañ ci jàmm mbir mi dox na ci teyu bakkan ñu ngi rafet njort ne incha allahu taala résultat yi ci bàyyi ko dana nekk résultat yu xam ne yu dal xel la résultat yu am solo la xanaa di wëññi ko waat di sant bu baax jëwriñu kër gi di c alhaji Serigne Seck di ko jaaree ci jëwriñam Serigne Fallou ak sëñ daam ak bokk yëpp di santit baax it comité bi nga xam ne ñooy wàllu xam-xam bi ci biir euh, concours bi ci njiito sëñ Xaadim Ndiaye ñaan suñu borom mu dool na ndimbal incha allah ñu dox ba àgg ca final ba incha allahu taala te ñëpp fekke ko suñu borom yombal lépp te gërëm liggéey bi te nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. كنت بنعمة ربك بمجنون